قد قام خير البشر واستقيار سمري إلا سوي تكبري كالبدر واشتان جمي يوما به استاد يوما به القتال يوم تهار في رجال يوم رلا والوجمي وسالك اليوم فلا لشتلاء وربها لشرتقاء وزلا لكل شخص مسلم kasa ci walu ci walu beuri itam suñu may bandi nga xamanteni deg ni mu jangu moo xam yi daf ko ànd ak waa Kër Sëñ Masamba jàng ko wala yi nga xamante ni Sëñ Abdu Lahat jàngaloo na mu doon loo xam ne njàngum kenn la maanaam lu weesu gis ak lu mel ni inna laa maana ak mawaahibu ak muxaddimaat ak daaju basiidi maanaam dégguñu ci moom beneen baaxul boo xamante ni jàng na ko lu mel ni rajas wala lu mel ni xasid ak alaama wala xasid yoo xamante ni day nuru baax indi ni ustu yu demee noonu ndax daan na faral di jàng xasid yooyu ndax lu bokk la band yooyu dañu déglu waaw ah, waaye dafa bari na xasaayit yoo xam ne yi moom it daana ko jàng waaye li ci daan ëpp da di durus nag lool moom mais di jàng jalibatul maraaxib ak yu demee noonu daana ko di ko duruse noonu yu bari dafa fekk xam nga ma ngee ñëpp jeex tak bam dess ci mom dong ba suñu abdulaat jangalo ko band boobu bii gannaaw bobu nak ñi muy andal ñëpp bo ñi nga xam ñoo fi dess ñëpp daanaka am na ñi ci gënal doon mak fi ne ñoo ki taw ma maase nga xane bobu dafa mujj di and ñi muy àndal daanaka ay doomam rek lañu waaw ndax moom ka xane modib tawam di Modou ablay ak Modou Makhtar suñu mag bay joxe seen tour ci njaarim mooy ne kon bu ñu fi nekkoon tey ji di mag lool. Ah. waaw <laughs> mm, am na am na uh, am na bànn bu muy waxtaanee waxtaan sëñ Touba ba ba tudd ma ci man mii wax ne ci caatam laa bokk waaw. <laughs> waaw waaw waaw maanaam waxtu mi jàng bànn boobu day day defarug sëñ bi rek. Mm-hmm. waaye booba ku ca toll woon fi mu ne ku ne rek fi mu ne sa sa xel xel amatul uh, di di jàng bànn di ko yëkkati mukk No. No. ci biir njàng mi nga xam ne waa kër sëñ Massamba danañ ko jàng itam dañoo seetlu ne eh, daa ji nga xam ne dinañ koy jàng ci band yi ñu ko jàng yépp léeg-léeg mu am ci ay wuute ci wàllu gaaw bi nga xam ne moom lay gaaw wa ila léeg-léeg nga dégg ci band boo xam ne day mel ne dañuy xaw a mel ne ku yëy yëy arafi di ko di ko yëy loolu ñu bëggoon a xam ndax dafa bokk ci keno yi téye njàng mi euh, wala ak yëg la rek goo xam ne ñi ko ñu koy jàng ñoom ñoo ko yëg di ko def ci biir ak baral gi nga xam ne léeg-léeg danañ koy baral njàng mi li li muy li jur ci biir njàng mi. Hmm. baral googu nga xam ne ñu ngi koy baral léegi la baral gi yaatu waaye baral gi dawut dawut barloon xam nga bu fekkente ne ki jiite dafa neex baat wala wala wala baatam xaw a senj te te mu amuk yàkkamti wala mu xaw a bar faaw njàngam day gën a bar loolu loolu loolu ndax njàngam njàngam bar moom moom la suñ bàkki fal moom gën a mane waaye ñoom ca seeni jamono ñoom seen seeni jàng dañ ko dañ dañ ko daan def mu digg doomu rek nga xam du bar waaw boo dee seetlu sax la mu gën a mooy mooy booy mooy mooy xaw xaw a xaw a lay xaw a gën a jëm waaye du waaye du bar ndax jàng jàng dafay mel ne luy xaw a xelliku lu mel ne ngay xaw a xelli lay neex lool noonu ngeen di jàngee mooy boobu di ko àndandoo léeg-léeg leen romb ngeen teg bande bande foofu fekk ma jëm si ci jumaa ji bu fekkee lu mu fekk ma di ko jàng wala lu mu fekk ma di ko wax du loolu du mën a yegg dara dut ma ko ci manati lu lu leen diglu ba ba ba romb leen rek soo ko manatee wax lenn moom waaw loolu moom day am bu bu wér waaw loolu moom moom moom tubarkalla waaw. mu xel ko it kon dafa am. Hmm? njàng mu xel ko moom kooku moom kooku moom dañ leen ko dañ leen ko wax waxuñu leen ko waaye fi ne moom ca ngeen ne ndax bërëb boobu bërëb mooy boobu noonu ngeen koy jànge noonu rek mooy xel bi ahbabtu rabbal alamin maalamin wallamin wan xaada sikra wallamin dikal këli wa jasadim ahbabtu rabbal alamin الله مني والله امين وانغاد سكرة والله امين لك الكيل وجسد